sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum mbokki murid yi mbokki jullit yi ñoo leen nuyu bu baax te di leen siyaare te jiital si nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ñaan saa borom mu yàggal ko fi loolu te wéral ko ba mbooleem naal yi nga xamante ni naan la ko yéen ko liggéeyal maam ju tedd ja sëñ Bamba saa borom dolli ko kattan ak man-man dooleel ko defal ko tawféex ba nu mu ko bëggee mu defe ko nii noon it lañ koy ñaanalee Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall Menda saa borom gën ko fa yàggal moom it te wéral ko ba mbooleem digee ko sëñ Bamba yëpp mën koo jëfee ni mu ko bëggee di ñu ko diggal ñu koy jëfee ni mu ko bëggee di ko ñaanal mbooleem murid yi mbooleem jullit yi ku leen yéene jàmm ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen siyaare fii nga xamante ni mooy janatul waa fii nga xamante ni mooy Baye faal ga waaye fii nga xamante ni mooy kër Cheikh Ibrahima Fall nga xamante ne fi nga ki nga xamante ni tey mooy Cheikh Ibrahima Fall di Serigne di Fall ren mooy ñaareelu atam boo xamante ni gannaaw bi mu doonee Seera Fall nekk na fi di fi toggee ndogu di koy yóbbul ki nga xamante ni mooy Serigne Touba du mun Mountakha waaye nag ku wax ndogu wax li nga xamante ni mooy togg ñam ku wax togg ñam nag wax waañ moo tax tey fii lañ leen ko ubbilee fii nii si waañ bi nga xamante ni lépp loo xamante ni xew na fii nii ci biir liggéey bi dañu leen ko wan li xew si waañ bi dañ leen ko wan jël jëwriñ ñi waxtaan ak ñoom waaye li xew fii nga xamante ni mooy ci mbaar mi nga xamante fa la ñuy teg ndog yi dañu fa dem tamit wan leen la nga xamante ni moo fa xew ànd ak yéen nii indee ndog yi nga xam ni njabootu Seex Rafal gi fu ne la waay bawoo togg ay ndogu di ko indi fii sëñ Amdi mu koy dajale di ko yóbbul ki nga xamante ni mooy Serigne Touba noonu la ñuy ànd ak yéen bawoo fii nga xamante ni mooy Jannatul Mahwa wan leen convoi bi dem ba ni ñu koy jébalee ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké waaye noonu tamit lañuy ànd ak yéen durant koor gi yëpp ba weer bi jeex ba li nga xamante ni mooy korité mbooleem loo xamante ni xew na ci ndog yi mbooleem foo xamante ni wax nañu njabootu Cheikh Ibra Fall gi ma nga fa di togg ay ndogu ñu wan leen ñoom seen ndogu naka lañ koy waajalee ak nuñ koy jébalee jëlal li nga xamante ni mooy xew fii nii si jam jannatul maxwa dina leen jëlal li nga xamante ni mooy xew Touba fii nga xamante ni mooy paaleen dana leen jëlal ba kër borom digal waaye dana leen jëlal ba njaareem jëlal leen ba fii nga xamante ni mooy daaru xafoor liñ si jublu mooy fexe ba ñun ñii nga xamante ni suñu yitte ji yëpp weesu lu dul ndigal yi nga xamante ni Serigne Touba mi ngi koy jox Cheikh Ibra Fall koy dund comme niñ koy dundee loolu rek lañ si jublu moo tax incha allah ñun ak yéen ñoo ko fas yéene ànd weer bi yëpp ngeen ni gis li nga xamante moo moo xew fii di ko xam comme niñ koy xamee lépp loo xamante ni liggéey nañ ko fi ñu boole ñun ñëpp bu nuy am ngërëm ñun ñëpp ñu amandoo ko kon nañ àndandoo daal di tabi si biir wan leen li nga xam ne tey premier jour koor fii si jannatu lii moo fi xew kon nañ àndandoo daa di tabi si biir bismillah. la laa ilaaha illallaah jërë ngeen jëf mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon rek danañ tàbb ci biir wan leen ci liggéey bi ngeen dund ko comme ni nga xamante ni noonu lañ koy dundee ñun ñi ngi taxaw ak kii nga xamante ni mooy bàjjan euh, soxna Aminata Fall di moom sëñ Amdi Fall Modou Menda moom nag bokk si jëwriñ ñi nga xamante ni ñoo jiite waañ bi nekk si kër Cheikh Ibra Fall bi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci liggéey bu waañ bi yaay boo ñu ngi lay nuyu bu baax te di lay siyaar waaw ñaa di ñaanal sëñ Amdi Fall sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loo téwér murit bu ne boo yeew war nga koo wax di ñaanal sëñ Amdi Fall mu yàgg fi loo téwér na ko togg téeméeri téeméeri koor yëpp ko sëñ Muntaxa di bàkk sëñ Tuubaa ak Cheikh ak taalibe yëpp ak jullit yëpp ndax waañ wi kat dañ cee wax Njaay Mbay nga xam ni mooy jëriñ bi ah tubaarkàlla ke Cheikh Ibra Fall ñëpp a ngi teew kenn ku ne ñëw ak sa kenn ku di nekk ne tey boo sañoo yaa koy def ba ci sa morom ndaxte tey kenn ku ne boo sañoon sa loxo nga sa morom téye sa loxo mooy joxe li wati koor gi yëpp yal na yàlla yombal murit yëpp xéewal dafa leen barke ak barke sëriñ bi yàgg sunu kanam ngeen yàgg nu fee fekk di ñaanal rajo bi ak télé bi. nu yàgg yéen ñi ko jiite yore ko ngeen yàgg te yàlla defal xéew kawe seen jot te mu ànd ak liggéey bi ànd ak barke ak barke di bàkk sëñ Mat Fall mel na bàkk maam Cheikh Fall bàkk seen di na soxna si soxna si liñ la yëpp ngi fi ñoom ñëpp booloo doon benn képp buntu kër Cheikh Fall yëpp daje fii ku nekk am waañ noonu nu mu demee waaw loolu itam buntu kër Cheikh Fall yëpp loolu moom nga waxoon rek moo fi nekk na Cheikh Fall booy na njabootam yëpp benn dank moo am boolee waa na njaboot yëpp benn dank ndax légissement bu nekk a ngi fi te ñëpp bokk sëñ bi Cheikh Ibra Fall te jox ko seen bopp jébbal ko seenu njaboot seen lépp ñëw di ko ñaqal di di jëf seen doole ak seen alal ak bokki taaliba yépp waañ wi jàmm rek fi am ak salaam ñun ñu ngi ci jàmm ak salaam ñëpp ndax sama nday waajur yi nga xam ne maa nekk ñoom ci waañ wi mu njaboot Cheikh Modou Moustapha dañ la di seex si loo xam ne nan naar rëq bu ma wooyee digal ma ma daal def loola kon nag day ñaan sëñ bi yàgg suñu kanam yàgg ko def bàkke maam Cheikh Fall bàjjen euh, ma bëgg xam bi nga euh, fi xëy si woon euh, tàmbali liggéey ban waxtu. 5 heures du matin ba léegi ñu ngi fi ndax ñun waa Mbacke sax ma ñoom 4 heures et demi fee leen fekk. njabootu Cheikh Fall yëpp su ma génnee 5 heures damay fekk ñëpp la ba san commencé xool ñii di def nañ di di nekk di saytu liggéey bu baax a baax jërë ngeen jëf.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 Cheikh Moustapha Sylla Cheikh Moustapha euh, la ñu ngi lay nuyu di la siyaar lan la mën a jàngatal tuuti ci liggéey bi nga xam ne Serigne Amdi Modou Mbenn yokku na liggéey bi jëlee ko fa ko magam yu baax yi baayam yu baax yi jëlee woon waaye yokk ko yokk boo xamante ni yéem na mboolem koy bàyyi Fall euh, li mu waxoon ne euh, du ma soppi waaye damay sof rek. sëñ Ablaye jërëjëf Ndaw ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di leen sant te di leen gërëm di leen jaajëfal. ci taxawaay bi réew mi ak bitim réew waaye di ñaanal nag Cheikh Mouhamadul Mountakha saa borom gën ko fa yàggal ci dolli ak wéram ak njabootu Cheikhul Khadim gépp ak mboolem taalibe yi di ko ñaanal jàmbaare Cheikh Ibra Fall ji Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda nga xam ni fii ñuy àddoo ci Touba Jannatul Mahwa ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne fi nii liggéey liggéey Cheikh Fall bi muy ndogu yi mi ngi ci biir xam naa ci kanam tuuti bu ko yàlla dogalee fas yéene naa génn dox ay jéego ñëw ba gis liggéey bi nga xam ne moom la ko Serigne Touba di liggéey mu di ko ànd a njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp fas yéene ko jébal borom Touba mu mel ni da laaj ni nan lañ gisee liggéey bi sëñ liggéey bi nañ ko gisee at ni mu teg seen bët. ndax kenn ku nekk xam nga fokk sëriñ Cheikh Jëmb Fall bàyyi woon waaye sëñ Cheikh Jëmb it xam na fokk sëñ Modou Aminta Fall bàyyi woon sëñ Modou Aminta ku ne xam na ni fokk waajuram ba sëriñ Abdou Sakkoor Fall bàyyi woon ku ne xam nga ko sëñ Abdou Sakkoor fa ko Sërif Assane Fall magam ju baax ja bàyyi woon ku ne xam nga ko Sërif Assane Fall fa ko sëñ Ablaye Fall Ndar magam ju baax ja bàyyi woon kenn ku ne xam nga ko sëñ Ablaye Fall Ndar sëñ Mor Talla sëñ Mor Talla Cheikh Moustapha Fall Cheikh Moustapha Fall Cheikh Ibra kon day mel ni Cheikh Moustapha Fall mu dellu si waat di sëñ am di Fall moom sëñ Modou Mbenda di doomi sëñ Modou Mbenda jiite tey buntu këri Cheikh Ibra Fall yëpp nga xam ne fii mu toog tey moo toog ci toogu Cheikh Rafaal bi yor baat bi yor ndigal li fa séenu ko wéyal ànd ko mboolem njabootu Cheikh Rafaal gi ku Cheikh Ibra jur sa baay tey jii nga taxaw sa buntu baay yaa ngi ànd Serigne Amdi Fall liggéey bi nga xam ni fii nga taxaw ba ba nga yegg jumaa ja boo jugee tuuti ci kanam bëgg a dem dem dina jafe lool te dara waralu ko nag lu may liggéey Sëriñ Fall bu barkeel bii nga xam ne boo demee Sëriñ Mor Talla Fall moom sëñ Laay Ndar Cheikh Abdou Rokhaya moom sëñ Mor Talla sëriñ Cheikh Ndigal moom sëriñ Cheikh Fall Baye Góor sëñ Cheikh Fall Mbawar moom sëñ Aliou Fall Mbawar sëriñ Falilou Fall moom Cheikh Abdou Sakkoor Fall sëriñ Badara Fall moom sëñ Talla Yaasin moom sëñ Basiru Fall ànd koog mag sëriñ Abdou Rokhaya Fall nga dugg tey ba kër maam Saliou Fall Daaru Xafoor waaye jaaral nag kër Cheikh Sërif Assane Fall tey jii la alxames fi ne ku dem njaareem nag yaa ngi tàmbalee wàcc muy waajal guddi gi fas yéene jëm ñoom bët bu set wicc loolu nag moo xew fii ndax bër ki am na koy wax ay bool muy fukki bool ñaar ci bàyyam sëñ asan yaakaar naa sëñ bay loolu ñu ma dendal gis naa vidéo bii mu ànd ak yow taxaw ngeen di xooli liggéey sëñ di Xadi Ba waaye xam fukk sëñ Asan bàyyi woon fukki bool a ñaar bu la jenn doom wuutoo yóbbu ko ci juróomi téeméeri bool liggéey bi sa borom nangu na ko loolee nag moo am fii ndax sëñ mu daminta eggoon na ci ceeb ak ndawal sëñ see jëmm ñëw ni ko ku yokku da ngaa wàññi lépp dinaa ko def ñamu Touba muy doon ay ginaar ak xar waaye bi sa di faal ñëwee nag daal ginaar ya fas yéene def ak ndawal muy nag ndaw ndax Cheikh Moussa nee na ndawal day ndawee la ilaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha nee na sëriñ bi nee na liggéey bi sedd na ab xolam dëgg-dëgg te di ko liggéeyal bu baax muy sëñ Touba nee na sëñ Touba di ko liggéeyloo Cheikh Ibra Fall nee na ni ngeen ko defee xolam sedd na si kuy jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf nee na gis na ko bu baax nee na gis na lépp jërëjëf Fall. asalaamaaleykum. Mouride sëñ bi nee na asalaamaaleykum. nee na mi ngi nuyu mbokki Mouride yëpp. ci ndigalul Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue. jiw yi Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda moom maam Cheikh Ibrahima Fall. lii moom des ci mën ta ñàkk sànni kàddu rek. nee na lii de des ci mën a ñàkk wax ay kàddu. waaye li Serigne bi def rek. waaye li Serigne bi def. jug ak tànkam. jug ak tànkam. waaw ba ñëw ci liggéeyam bi. waaw ba ñëw ci liggéey bi. wax ne xolam sedd na guy. wax ne sama xol sedd na guy. wax ko ba muy ñetti yoon. wax ko ba muy ñetti yoon. ñun murit yëpp sunu xol sedd na muy guy. ñun murit yëpp sunu xol sedd na ñu nit ay guy yu. ndax liggéeyal ko. ndax liggéeyal ko. ba mu am ci rek. ba mu am ci mbégte. loolu rek lan doon sàkku. nee loolu lan doon sàkku. ndax su su amee rek. ndax bu amee. ñun liñ bëggoon am nañu ko. ñun liñ bëggoon am nañu ko. xanaa di ñaan murid yi nag. xanaa di ñaan ci murid yi nag. ñu ñaanal ko ñoom ñëpp. murid yëpp bokk ñaanal ko. moog Serigne bi Serigne Mouhamadou Mountakha. moog Serigne ba Cheikh a Mountakha Mbacké. yàggal leen fi. saa borom leen fi yàggal. te wéral leen. loolu la ñuy sàkk ci murid yi. loolu la Serigne Saliou di sàkku day ci murid yi. ginnaaw bu loolu wéyee nag. nee ginnaaw bu loolu wéyee. Serigne bi dafa wax ni. Serigne bi daa wax ni. lam doon wax démb rek. lam doon wax démb. loolu rek la wax tey. nee loolu lay wax tey jii. kër Cheikh Ibrahima daal. kër Cheikh Ibrahima Fall daal. lañu ko xàmmee. liñ leen xàmmee. mooy ab yar. mooy ab yar. ay teggin. ay teggin. akub taalibe. akub taalibe. bu ngeen yëkkatee tee dab yi. nee bu ngeen yëkkatee tee dab yi. na mu ko doon waxee démb. na mu ko doon waxee démb. ànd leen akub yar. nan ànd ba fu ñu yegg. ba fépp fu ñu yegg. ñoo xam ne ndawi Cheikh Ibrahima agsi nañu. ñoo xam ne ndawi Cheikh Ibrahima Fall yi agsi nañu. waxuñu ci yëngutu de. nee na waxuñu ci ak yëngutu de. ci dal rek. ci dal rek. ak yar. akum yar. ak teggin. ak ay teggin. jébbale lañ leen yónni. jébbale lañ leen yónni. na ngeen nañ leen ko jox loo. ñan leen ko jox loo. ngeen jox leen ko. ngeen jox leen ko. te bañ leen a rëtloo. te te bañ leen a rëtloo. ndax nit kat. ndax nit kat. dees na ko yónni fi barab. dees na ko yónni fi barab. mu àgg ci kañ ko yónni. mu àgg ci kañ ko yónni. tiitloo ko. tiitloo ko. loolu nag la koy waral. nee loolu nag la koy waral. mooy na mu fa yeggee. mooy na nga fa yeggee yow man yónni. loolu nag nee loolu nag. dalul kër gii ñu bokk. dalul kër gii ñu bokk de. di kër Cheikh Ibrahima di kër Cheikh Ibrahima Fall. sëñ bi nee na ànd akub yar rek. sëñ bi nee na murid yi dina leen ànd akub yar. ànd aki teggin. ànd aki teggin. ànd akub taalibe. ànd akub taalibe. loolu lépp nag. nee loolu lépp nag. laltaay ji. laltaay ji. mooy ak taalibe. mooy ak taalibe. taalibe jiitoo rek. nee na bu ak taalibe jiitoo loolu lépp mën naa tege ci loolu lépp mën naa tege ci kawam taalibe nee na ak taalibe mooy womat yooyu yëpp mooy womat yooyu yëpp ba mën a am ba mën a am kon si gaañ yi kon gaañ yi nan leen ànd ak yar nan leen ànd ak yar ànd ak teggin ànd ak teggin ànd ak taalibe ànd ak taalibe jébbale eh, ñam yi ñu sëriñ bi joxeloo nee ba jébbale ñam yi ñu sëriñ bi joxeloo ñu jox ko ñu ko jox loo ñu jox ko ñen ñu ko jox loo bu leen xëccoo yi nee na bu gën xëccoo bu ngeen fa mën a dajeel nee na kon fa mën a dajeel nee leen teg nee leen teg bu leen jiitoo bu yi xam leen ni a bokk lu ngeen a bokk lu a bokk jenn jëf yéen a bokk jenn jëf yéen a bokk jenn kër yéen a bokk jenn kër na leen yaatalante na leen yaatalante xajalante te xajalante bu leen xëccoo dara bu kenn xëccoo dara nee leen def ndànk nee na def ndànk nii la ko sëriñ noonu nii la ko bu loolu weesoo nee na ginnaaw bu loolu weesoo soxna yi nga xam ni soxna yi nga xam ni ñooy yore liggéey bi liggéeyal sëriñ bi. di ko liggéeyal sëriñ bi. donga yi day. donga yi day. mën nañoo joxe ci joxe ci ba mel sëriñ bi bëgg. ba mel ni ko sëriñ bi bëggee. soxna yi ñoo koy def. soxna yi ñoo koy def. ndax yi tàng na lool. ndax taal yi tàng na lool. waaye monsieur su la benn yoon. waaye monsieur su la ñëw benn yoon ci sëriñ ko cin sàngam day. ni ko cin sàngam day. nañ ko waajalaat. nañ ko waajalaat. ndax dafa tàng. ndax dafa tàng. wala dafa xam. wala dafa xam. wala daa mel nu mu. wala daa kon ñooñu itam. kon ñooñu itam. sëñ baa di dool bi. dàgg leen. dàgg leen. la ñu nekkoon démb rek. la nekkoon démb. nañ ca set. nañ ànd ak di laab di laab. di sellal dab yi di sellal ñam yi di sellal ñam yi. bu leen jëkkante. bu kenn jëkkante ni mur yi. jéem a jëkk a ñor leen. nee na bu kenn jéem a jëkk a ñor leen. ginnaaw moom lu mën a xew. yooyu. ki njëkk a ñorle. ki njëkk a ñorle. ki mujj a ak ki mujj a ñorle. ñooy àndandoo. ñooy àndandoo. kon mënees na koy def ndax kon mënees na koy def ndànk rek soxna yi. mu ànd ci tey. mu ànd lépp ci ak tey. baa ngi sant ba sëñ baa ngi sant nag. dong yi ndax nee na liggéey bii ngeen génne. ndax nee na liggéey bii ngeen génne. ko ko defalee. woon. da cee seddu guy xoolal da cee seddu guy. ba keroog mu wax ko. ba keroog moo ko waxal boppam. ngeen dellusiwaat tey jii. ñu dellusiwaat tey jii. mbooloo mu toll nii. mbooloo mu toll nii. dajewaat fii. dajewaat fii. mel nii ñu mel. mel nii ñu mel. jébbalaat sëriñ bi. jébbalaat sëriñ bi. li nga xam ni. li nga xam ni. mooy liggéeyam bi nga xam. mooy liggéey bi nga xam ni. moom la jëmee ci kër sëriñam ba. moom la jëmee ci kër sëriñam ba. kon nee na mi ngi leen di sant. kon nee na mi ngi leen di sant. mi ngi leen di gërëm. mi ngi leen di gërëm. waa mbaar mi def lii itam. waa mbaar mi nga xam ni. ñoo def lii. di alali Cheikh Ibrahima Fall. di alali Cheikh Ibrahima Fall. dañu koy jébbale jébale. keroog ba koy jébale nii. man de damaa xëy ñëw. nee na moom mii dafa xëy waaye dañ ma gi la. waaye nag mu ni ci ngoon gi maa ngi dellu kër ga. mu ne ko kon de ga. maa ngi fi de. mu ne ko fi man nekkal naa leen fi yéen nekkal naa leen fi yéen suñu waajur baa ngi leen di sant. waa Mbar bi Omar Seck général sëñ baa ngi leen di sant nooy itam neen ñoom dong itam nga xam ne nooy seen morom yi dong nga xam ne ñooy seen morom yi dong sant nañ leen sant nañ leen sëñ naa Omar Seck am nañ mbég lool nee na am nañ lool seen jëf jëf ji ngeen. ci seen jëf ba mel nii mu men ba mel nii mu mel. yaatu. yaatu. féex. féex. tàngul. tàngul. ñu ngi leen ciy sant. nee na ñëpp ngi leen ciy sant. di leen gërëm. di leen gërëm. di leen ñaanal. alal ji nga xam ne nee ngeen mooy alal di Cheikh Ibrahima. alal ji ngeen yoro. na ko nag alal di Cheikh Ibrahima dara mënu ko yàq. ko yàq. waaye seytaane. waaye seytaane. daa bari doole. dafa bari doole lu jekk. lu jekk. lu rafet. lu rafet. lu baax. lu baax. te jëm ci yàlla. te jëm ci yàlla. loolu rek ko tax a jug. loolu rek ko tax a jug. waaye ñu ngi leen di ñaanal. waaye ñu ngi leen di lépp moom. loolu lépp moom. yàlla na ngeen ci mucc. yàlla na ngeen ci mucc alal seet ba faat bi. te nu mucc ci. te nu mucc ci ñun ñii. kon jërë ngeen jëf. kon nee jëf. jërë ngeen jëf